dafa am lu ñuy wax opération pré hivernale tënku rek ci euh, setal yoon wi xàll ko waaye aussi yeesal euh, yenn bërëb yi lu ci mel ni station de pompage yi canaux de canalisation yi et autres bu fekkee nag def nañ ko niñ ko war a defee yooyu zone nga xam ni bénéficier nañu yooyu euh, ouvrage ci yoon war ñoo am inondation ñu fàttali ni grande mosquée bu Touba ak fi ñuy wax résidence Khadim Rassoul te ñu ngi nekk ci zone boo xam ne am na jumtukaay yu wax canalisation kon tey bu fekkee dafa taa dafa taw mu taa ba tax sax ñu jëli sapeur pompier yi nga xam ne loo ci mënti dégg yi dana jural état bi yeneen dépense jaadoon nag ñu laajte ndax am opération pré hivernale bi li ñuy wax curage des canaux defoon nañu ko. bu ñu fàttali ko DG Cheikh Dieng jël na fa ay tuuma yu rëy wax ñi dafa am mafia ak système boo xam ni ñu koy doxalee. tant que mi ngi inondation bi jeex Sénégal ñu sàkku ci ak leeral di xaar ci ministre bi tontuwuñu mu continuer mel ni ko faalul askan bi mel ne it am na doole yoo xam ne sax président moolu ko dara